télévision Futur Média ñi ngi leen di nuyu am nañu mbégte dellu si ak yéen ci seen spécial de Faram Facce eh, Faram Facce nag ni ñu koy amalee àllarba bu jot ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci eh, ànd bi ngeen koy ànd ak ñun di leen eh, déwénati ndax it gannaaw bi ñu génnee ci daanaka ci korité bi bi mooy émission bi ñu dikk ñu ngi leen di baalu àq ndax xam ngeen itam émission moom. def ko euh, askan bi di la seetaan rawatina mu nekk une émission en direct xëy na sax mu doon nii dañ ko enregistré yenn njuumte yi nañ ko mën a dindi wala leneen mais direct la kon ku la ci comprendre rek amel nga ko ax boo xam ne war nga ko baalu euh, ñu ngi leen di déwénati di leen balwax di leen balax di ñaan yàlla nag at euh, bi nga xam ni moom la woor at bële di ñëw buñ ko wooree yàlla mën a def képp koo xam ne lépp lu nekkoon sa ñaan la yàlla nangul la ko Alioune Badara Cissé la nekkoon na fi jëwriñ ñu dénk ko wàllu jëflante ak bitim réew avocat la itam à la cour euh, ñu am mbégte ci mu nangul ñu émission bi euh, ñu recevoir ko tey euh, monsieur le ministre télévision Futur Média ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Pape Ngagne di am mbégte teew sa kanam. voilà. def mel ci audience nga jógee de xanaa. waaw ci audience lañ jógee waaw. audience bi voilà audience bi aussi dañ ko reporté ba le 18 incha allah. Euh, dañu ko suspendre ba le 18. <laughs> pour mën a vider délibéré bi nga xam ni moo méngoog exception d' incompétence yu ñu yëkkati ne CREI yi mënul àtte Karim Meïssa Wade ak ñu mu ànd. waaw exception yooyu yaakaaruma ne toppee topp ko mën nañu dem ci benn benn procès buy gudd. waaw CREI yi bi ñu defee seen estimation jàpp nañ ne. procès bi war na mën dem ci ñaari weer ak genn wàll ba ñetti weer bis bu njëkk bi bi ñu ubbee bi avocat yi commencé génne exception yi président bi nee na yàkkamtiwul ku nekk mën na ko jox la mu soxla ci kàddu ci temps pour kàddu ndax moom même bu dee juróom benn weer mën na fi toog ma yaakaar ni lépp loo xam ne yoon may na ko mu indi ci kanamam mu ne su ko bàyyi noonu faagaagal ko rek ngir yàkkamti procès kenn du ko yàkkamti dañu koy benn bennal ba lépp loo xam ne àq la ak yelleef jëm ci kañ ñu téye jëm ci nguur gi itam jëm ci société bi nga xam ne procureur spécial moo leen fa taxawal ñu mën ko matal. d'accord exception yooyu bi nga xam ne mooy bu mujj bi am na bu ko jiitu woon bi ko jiitu woon jóge ci euh, avocat au parti civil bi mm-hmm. notamment maître El Hadj Diouf mu aju woon ci yéen ñi nga xam ne ay avocat ngeen. Mm-hmm. Euh, mu mel ni ndam la ci yéen wala lan la ci dogal bi nga xam ne juge bi jël na ko ci. ñun la ñu ndam taxaw na xam naa ne ndam dana taxaw incha allah bu fekkee wey wéyale nañu liggéey bi ba ñu ne CREI bii ñu indi Karim Meïssa Wade nekkul ëtt boo xam ne mën na ko atte waaye ñu ne Alioune Badara Cissé ministre la woon warul mën a plaider contre l'état wala pour ma l'état Madické Niang daalika na ko noonu euh, El Hadj du Sall moom itam noonu premier ministre Souleymane Ndéné na ko noonu jàpp naa ni li ma leen waxoon keroog rek ma ne leen yoon dafa may képp koo xam ne dañ ko nit ci kanamam mu tànn avocat ba ko soob yàlla dogal na ñun la boole ñi boole nañu ci ñi nga xam ne tànn nañ ko tànn nañu ci wóolu ñu ci défendre ko mhm. donc nañ leen dem layoo rek moo gën noppale te itam cour bi loolu la topp ne yéen li ngeen di wax yëpp indiwu leen benn kayit teg ko suñu kanam donc ñun def ñu noonu ñun bi ñu soulever exception d'incompétence ay conclusion la ñu déposé bërki démb ñoom ñu ñaan ñu renvoyé audience su démb bi ba dëmb ci ngoon ñu soog a ñëw tàmbaliwaat liggéey bi. d'accord euh, ci loolu tam am na lu ñu leen opposé muy juge bi notamment bu fekkente ni àndu leen ci CREI te nga dégg ni itam bi ñuy demandé liberté provisoire Karim Wade dañ ko adressé CREI pour bàyyi ko mu am bàyyi bi négandiku bu fekkente ni euh, sa client da nga jàpp ni cour bi koy atte waru ko atte ndax jàpp na ne cour boobu war na ko mën a jox liberté provisoire di bàyyi bi néggandiku ah ci wàllu woowu dafa am ñaari pàcc benn bi mooy article boo xam ni 127 la dafa ne képp koo xam ne téye nañ ko juróom benn weer te atte ko dañu ko war a bàyyi waxaat ne CREI yi dañu lay téye juróom benn weer yoo xam ni bu matee enquête bi war na jeex ci ñaari weer yoo ci topp ñu atte la wala ñu bàyyi la mhm. donc bi CREI yi xamee loolu ci la def deuxième mise en demeure jëmale ko ci Karim Wade ci la ñu ne gis nañ ko à Monaco ñun ñu attirer attention coup bi ne la nga xam ne nee ngeen gis ngeen ko à Monaco nekkul lu bees parce que lu bees mooy loo xam ne day changer la qualification des faits li nga xam ne moo tax ñu jàpp Karim Wade ak ñeneen ñi mu àndal indi leen fii mhm. ñoom seen bopp xam nañ ko ba du ñu defee deuxième mise en demeure def deuxième inculpation dañu ñëwaat jël ndogalu jonction ne dañuy boole ñaari procédure yëpp parce que ñaari procédure yëpp daanaka benn la. donc beneen bañ ci sof euh, tofaloon boobu nekkul leneen lu dul wéyale diir bi nga xam ni Karim tëdd na ko ci kaso bi te attewuñu ko te bàyyiwuñu ko mhm. donc bés boo xamante ni cour bi le 18 nee na moom mënatul dem ñun am nañu foo xam ni foofu la ñuy dem pour demander que Karim Wade soit mis en liberté provisoire mm -hmm. en attendant que parquet spécial saisir les la voie normale ñu dem à l'Assemblée nationale def une résolution de mise en accusation d'accord wéyee les procédures boobu bu courbiné mën naa dem bu courbiné mën naa dem bu bi courbiné moom mën na dem mhm. ñu jàpp ne courbiné na mën na dem ñu wéyee les procès bi ah bon waaye am nañu yeneen pexe yoo xam ne duñu ko génne gum léegi d'accord d'accord léegi lu ci dugal Alioune Badara Cissé aussi indi woon na coow na ñu bari parce que nit ñi mënuñu comprendre nit koo xam ni ancien ministre la ci gouvernement alors euh, bi nga xamee ni accusation yi ak coow li mu ngi daal ci Karim Wade yaa ngi woon ci biir euh, gouvernement bi euh, ñu dem ba tey nga sol robe pour défendre ñi nga xam ni voilà ñoo nekkoon ñoo nekk tey jii say ñoo nekkoon say adversaire très bien loolu nag euh, maître jaaxal na ñu bari. Mm, dëgg ndax mën nga ñu ci gindi. waaw bu baax a baax baax xam nga avocat dafa am loo xam ni moom mooy encadrer liggéeyam bu fekkoon par exemple dama nekkoon avocat buy liggéey ci cabinet euh, disons El Hadj Amadou Sall jamono dox ma jóge ci cabinet bi am beneen yoon mën na ma may même ci wàll woowu. ma liggéeyal keneen koo xam ne mi ngi ci procédure bi waaye la mu may tere mooy loo xam ni xam naa ko jamono ba ma nekkee ci cabinet El Hadj Amadou Sall ma di ko utiliser pour di ko combattre ñun suñu liggéey dafa am déontologie te la ko lal déontologie boobu mooy doxalin wu rafet ak loyauté. man j'étais ministre des affaires étrangères def fa juróomi weer ak lu topp ñu jëlee ma foofu léegi mu mat ñaari at 29 octobre 2012 la woon bu ñu dawalee ñaari weer. daanaka anniversaire bi ñaareelu anniversaire bi daal di jot la nga xam ni dox naa ko ci ci dossier bi wax ci ak président de la république du loo xam ni dañ koy wax ci rajo bi ak di ko wax ci télé. muy dossier Karim Wade. waaw wala traque bi en général. dossier Karim Wade traque bi moi je ne suis pas d' accord avec la traque ça ne tient pas la route traque bi ça nous a fait perdre énormément de temps perte nañu suñu temps tas nañu ay kër. rey nañu ay doomu aadama gàllankoor nañu seen état de santé te jaru ko alors que lañ ci nit ñi jublu te président junjoon ko bu mu jógee Malabo ne nañ fexe ba ñu jël alalu réew mi delloo si côté loolu ñëpp ci maase ku jël alalu réew mi da nga koy delloo ku ñu dénk nga gérer réew mi boo paree da ngay wax lan nga fa def ak koppar bi foo ko dugal. Mhm. kooku ñëpp maase nañ ci. Mhm. mais jël kenn singali ko jàpp naa ni loolu. rafetul donc loolu tax na man ma fi sëngali nga ko jàppee bi ma bi ma mujjee gisante ak président ci bésu Kazu Rajab bi nu génn wax nañ ci dossier bi mais loolu du loo xam ne dañ koy wax ci télévision bi du loo xam ne bu may plaider dama ko fay wax la may wax ak président ba ma ko xamee ba léegi 1988 ba ba muy nekk premier bu nekk ministre de l'intérieur ba muy nekk premier ministre ba ba ñuy àndandoo ñeenti at xeex contre le président Abdoulaye Wade ba mu ngi jël nguur gi amul lenn ak benn ëtt boo xam ni taxaw naa fa ni président nee na ma ma ni ko la ma yoon may nag mooy man avocat la nekkatuma ministre léegi mu mat ñaari at alliance pour la république maa doon seen coordonnateur national teggi nañ ma fa maa ngi bokkoon comité directeur teggi nañ ma maa ngi bokkoon secrétariat exécutif national teggi nañ ma fa waaw léegi nag du ma dem defi sama liggéey. il faut que les gens aussi apprennent à être sérieux. d'accord et qu'ils comprennent. alors alors monsieur lan ngay toog jàpp nag ni teggi teggi teggi yooyu moo la merloo moo tax nga dem taxaw sol robe pour Karim Wade. mais bu doon loolu ma def ko bu yàgg man pap Alioune Diassé moo doon sama client moom laa njëkk dugal ci dossier bi toute l'instruction de pap Alioune Diassé à quelques exceptions près dama ko suivre bi nga xam ni ki doon nekk son avocat principal muy maître Moustapha Diop. yàlla na suñu boroom yërëm ko te jéggal ko génn na àdduna ma gën a jël dossier bi mais man seeti Ablaye Wade loolu dama ci yàgg di ko seeti parce que dafa am foo xam ni teg na ma fa ma teg ko fa te dara ump ci président la république amul lenn lu may mer ndax su ma doon mer kon daañ ma dégg fii wala ñu dégg ma faa ñuy bind ay livre ak di def ay déclaration dàq ñu ma ko mais dama yaakaar ni loolu du sama cër d'accord parce que ki nga xam ne moom laa seqaloon ci wàllu liggéey ma dem ba ci biir doyatuma ko ba mu jëlee ma fi mais damay jàpp te sant suñu borom rek parce que ba léegi dégguñu fi loo xam ne teg nañ ko sama kaw te mu doon lu wéy am na lu ñu fi tàmbali woon ma yóbbu ko procès ñu gagné ko mu jeex ma taxaw. donc damay sant suñu borom rek di remercier itam waa Sénégal parce que les motifs d'encouragement viennent de partout mais il faut que jamono buy dox muy am ñoo xam dañu taxaw ni déedéet. d'accord nañu taxawoon. dañuy bëgg bundu xataal président Macky Sall. ñu taxaw ànd ak moom. noonu la ñuy taxawee tey ak ëllëg ak gannaaw ëllëg fu ñu bëgg a bënd xataale doomu réew mi alors monsieur le ministre est-ce que ni nag jox nga nga may exemple fu ñu la teggi teggi la fa eh, dégg nañu la fiw sam bi nga xamee ni Pape Diop mi ngi célébrer son parti su ma juumul yaa nga fa woon eh, en tant que invité eh, te xam nga taxawaayam en tant que opposant ci pouvoir bi muy pouvoir bi nga xam ni Macky Sall moo ko jiite waaye itam bu ñu la déggee nga taxaw nekk avocat Karim Wade ak responsabilité yi nga amoon yëpp ci APR nga ni jëlee nañu la fa lan ngay xaar ci ci dogo ak APR lan la. xam nga parti politique. parce que aussi acte yi ngay posé ak ñoom yi ñuy posé yëpp dafa mel ni xaar sa moroom ci mu jël une telle décision parce que ñoom bu ñuy jël ay décision di teggi euh, ci yenn instance yi euh, ci ay ndomb tànk yoo fa am. Hmm. yow si ngay posé yenn acte yi mais attends loolu kay. alors est-ce xam lan moo lan ñu leen téye ba tey. Euh, je naa ci njëlbeen. la ma ci mën a wax mooy. Mhm. parti politique dafa mel ne association. Mhm. association la mooy man ma ne ASC Sandial laa bokk. Mhm. wala ASC Saint-Louis basket club laa bokk. sama coobaree dong la ma bokk ci bés bu jeexee sama coobaree nekkatu foofu ma ne leen maa bëggoon bokk bokkatuma kenn du la yóbbu ci yoon kenn du la ne lu tax bokkuloo kenn du la ne leneen. boobu mooy wàll wi nga xam ni que ci bokk moom la am beneen wàll ba ca topp mooy ña nga xam ni ñoo ŋànk kuréelu parti boobu mhm. dafa am ay dogal yoo xamante ni boo ci bokkee nii ak nii ak nii ngay doxale mhm. bu fekkee daanaka da dem bokk ci beneen parti politique wala nga démissionné mënatoo bokk ci parti bi bu ñu la gisee ni bokk nga ci beneen parti dañuy dajaloo jàpp ne yow kat gis nañ la ci beneen parti bokk nga ci am nañu preuve bi dàq nañ la mhm. Pape Diop sama mag la ñoo bokk sëriñ tubaab bokk sëñ Abdou Khader bokk sëñ Moustapha lu mu xewle su ma ko yëgee dinaa ci dem du xaar sax ku ma ci woo noonu laa defoon bi nga xamante ni maa ngi ci opposition bu gën a tar ànd ak Macky Sall Souleymane Ndéné Ndiaye ñu def ko premier ministre Abdoulaye Wade maa ngi sali mu woo ma wax ma ko sali laa jógee bàyyi sama yitte bàyyi fa sama njaboot ñëw ànd ak moom dem ci cérémonie ba ñu fa jógee lu ne wax nañ ko. Mhm. au ci sama propre parti politique. ma ni tey dama jàpp ni may premier ministre Sénégal ndax la ma bokk ak Souleymane dama bokk ak moom métier bokk ak moom la ñu jàng bokk ak moom Serigne Moustapha bu Serigne Abdou Khadir bi bokk ak moom ay lal bu bu kër gi xatee ba ba këram di pare. Mhm. man leen su fekkoon am naa jom ak kattan bi maa koy jëli këram tingam ko ba biir building ma superviser ba mu ba mu jël service ma soog a dellu. Mhm. donc man aw ma demi mesure. Mhm. te ba may ñëw foofu ba ma journaliste bi attaqué dama ko ni gis nga li nga xamul mooy Souleymane moomu fi indi. Souleymane mooy remplacé ak bu Soumaré te grand mbubb bi ma sol ba ci dàll yi ak bu Soumaré moo ma ko yónnee jox ma ko soxna dañu dul xam li nit ñi di seq. ak li nit ñi di am. dañu yaakaar ni politique moo mën a boole nit ñi te moo leen di teqale man politique du ma booleeg ak kenn. du ma teqale ak kenn. d'accord je n'entends pas. amul benn jamono boo xam ne toog naa ne Macky Sall dama ko bind leen ne ko bàyyi naa APR mais moomul APR sëñ bi la dogal yi nga xam ne may nañ ko ko ci biir APR. pour ku ko neex mu tabb ko fii ku ko neex mu tabb ko faa waaye hmm. bokk ci biir affaire kooku dogal boobu amuñu ko d'accord te jàpp ma ni loolu war na ma man waaw ci jamono bi nga xam nag dafa am ñu bare ñu ñu àndal di liggéey parti bi ba tollu mën na am mais du ma ko bàyyi pourquoi hmm, d'accord alors ñu fàttali leen ni mbokk yéen a ngi ànd ak euh, le ministre euh, bi nga xam ne moom la ñu fi dénkoon wàllu euh, jëflante ak bitim réew te mu nekkoon fa ci diirub juróomi weer juróom benn weer ñu jële ko fa Euh, xam naa ni waxtaan bi moom dinañ ko xóotal bu baax a baax ci wàllu APR ndax li ko sabab moom xam ngeen ko euh, am na sax ñoo xam ni jàppoon nañ ni moom mooy numéro de bi ndax loolu mën nga ñu ko dëggalal. xam nga organisation. boo demee bokk ci ña nga xam ni ñoo ko sos di ko dox di ko wax te yàggul fàtte xaju fi lu loo xam ne man maa ngi koy yeesal wala di ko biral ci nopp waa Sénégal lu ñëpp fekke la lu ñëpp xam la. waaye amul fenn foo xam ne taxaw naa fa rek ne defal leen ma lii Macky Sall barke Cheikh Al Khadim mosuma taxaw ni ko président lii laa bëgg wala lee laa bëgg bi ñuy former gouvernement bi proposé na ma ñaari mbir ma ne ko seetal fu la soob boo bëggee jardinier sax nga ni ma ABC dama bëgg nga di ma arrosel te danaa ko. te noonu nga ko waxee. barke Cheikh soo bëggee jardinier. jardinier sax soo ko soxlaa. Mhm. man ma arrosel. ba bi mu mujjee gisee ak taxoon nga xooloo non parce que jàpp naa ne ñun suñu warugar moo doon xeexal ko ànd ak moom xeex ak réew mi ba jële fii li nga xamante ni yaakaar nañu bu ñu bàyyi woon ñoo ñu gën a toog Sénégal fu ñu ko bëgg jëme du fa egg hmm. te ñooñee muy président Wade ak ñu mu àndal lu nekk def nañu ko pour que ma bàyyi fa ma nekkoon ñëw wuy si leen ma lànk carré. mais pourtant loolu waroon na ak li ñëpp daan dégg que ni ABC dafa Alioune Badara Cissé dafa doon diir mbagg Macky Sall am na sax ay cérémonie yoo xam ne ay catu la koy nuyoo euh, faale wu ko daf koy daf koy daf koy daf koy voilà dafa amoon benn dualité entre ñoom ñaar. xam nga. mais dégg dégg nga quand même yu mel noonu. dégg naa yu mel noonu mais dama ko teg fee parce que déggewu ma ko ci moom. Mhm. te doxalewu ma noonu ak moom. ndax bu fekkoonte dama koy diir mbagg. kon lu ma joxe sama bakkan ay yoonu yoonu yoonu yoon pour que moom mu nekk président de la république du Sénégal su fekkoon ma koy diir mbagg ba ma Ousmane Ngom woowee ne ma président Wade dafa bëgg nga jox ma numéro Macky Sall bu ñu koy jotee kon fa ma ko koy joxee fa taale sama oto jóge Ndar ñëw Ndakaaru fatt ko au Radisson je suis resté à Saint-Louis cinq jours au milieu de ma famille et de mes jaaruma Ndakaaru benn yoon proposition yëpp ma def yëpp egg si wul Ndakaaru maa nga mënoon naa ba bañ ma woowee di ma laaj numéro ma nekk ci rajo yi di wax balaa Macky di ko jot ma jëkk mais dama yaakaar loolu man pare woon naa ñun jeexal nañu on s'est battu on a réussi fexe ba moom mu nekk président la république moom moo ci des. benn bés ne naa ko waa saa doo ñoo xam ni ñoo ñu gën a frais ñu ànd ak yow doxal liggéey bi parce que ñun lu ñu mënoon def nañ ko parce que itam normalul ñu ànd ak yow ba fii ba noppi continuer di la wax fii ngay xool fële ngay xool. wax nga loolu. mais du jeex. Macky xam na ni. Euh, am na foo xam ni yàllaa def ma teg ko fa mu teg ma foofu loolu nag pour man à niveau du ma sa soppeeku. Mm-hmm. du tere nag boo xamee ni am na lu ma ko war a wax danaa ko ko wax ndax na ma lay nangulee di la xëyal di la gontal la contrepartie bi maanaam pay gi mooy loo xam ni gis naa ni war nga ko xam ma wax la ko. benn waaye nee na ma mais période yi ñu bari dañuy def déballage mais il faut faire du déballage ma ne ko mënuma def déballage parce que li ma xamal Macky Sall suba balaa midi dinaa ko ko wax su dee midi balaa 6 heures dinaa ko ko wax su dee 6 heures balaa minuit dinaa ko ko wax su dee minuit bu ubbee buntam ci ëllëg sa naa ko ko wax donc dencalu ma ko mbuusu ëllëg man du ma fonctionner noonu su ma la amee lu ma la war wax tey mu tëma ëllëg danaa fexe ba du la gis wala boo ma gisee ma njëkk ko donc yooyu taxawal puis ñun nag ay taalibe la ñu wees nañu foofu nag Euh, mais auteur xam état nu muy doxee. Mhm. ci ci wax yi ba tey xam nga dégg nañ ci bu yàggul bi sëre bi nga xamee ni Mbagnick Ndiaye def na sortie boobu ak bi ngay tont itam ci lu aju ci pourquoi nga eh, defendre Karim Wade nga ni da ngay défendre ñëpp ba mu des nan nga ko waxee. alors xam nga mbir il faut nga fekkee itam njalbeen dañu mhm. nekk ci biir audience bi am suñu benn mbokk avocat sama xarit la maître El Hadj bi mu plaider exception yi nga xam ne ñun ancien ministre waruñu ñëw défendre pour ou contre l'État te def ñu ñetti at ci biti mu ni ma et puis li ma ci gën a jaaxal mooy yow ngay défendre Karim Wade ba noppi di défendre Alioune Diassé mën na ko élage je défendrai tout le monde danaa defendre ñëpp bu ma neexoon fii ñëpp mu bindu seen kër seen tour ne dama leen défendre ne ko mbay Ndiaye mii sama mag la sama coloré la maa ngi am naqar lool fi ma toll nii pourquoi sama tour maasewul ak ñi nga xam ne ñoom ñoo koy défendre ñi nga xam ni kay du ma leen défendre mooy ñi nga xam ni première dame moo leen nommé et c'est tout c'est un incident d'audience c'est très simple du gaarawaale du yóbbante hmm. mais am na foo xam ne boo ma fa bëggee dugal man maay xam ne ma faa génnee ba fexee itam foofu doo fa jéemati dugal kenn ëllëg hmm. mais première dame moo leen nommé loolu boo ko waxee loolu lu leer la parce que mbañ Mbagnick Ndiaye moom la wax que ni moom bu du loon première dame kenn du ko fal am na ñeneen ñi tam bu ko neexoon bu ne woon Macky bul fal ñii du ko du leen fal te loolu rumeur la bu ñu fi fekk moom mu ñëw dëggal ko yow itam nga wax lu mel noonu. xam nga Pape euh, première dame Marème Faye nekkul leneen lu dul sama soxna ngir sama soxna xarit la fa ma teg Macky foofu laa ko teg moom ba Macky nekk président ma def Macky président la République def ko moom soxna point final sama combat politique. jëmul ci Marème Faye parce que jëmul ci Macky Sall bu fekkoon dama xëy rek pour xeex yi jàpp naa ne bu ñu xëyee huit heures balaa midi mu jeex. lan jeex. combat bi jeex. mais dama jàpp ne. jeex c'est-à-dire jeex maa ñëw maa ngi mhm. dama ne. bu fekkoon dama jóg xeex Macky Sall. Mhm. huit heures balaa midi combat bi jeex tàkk. moom ci kaw mais dama jàpp ne. moom ci kaw moom ci sa kaw wolof de maa ngi ñëw mais dama jàpp ne mënuma ànd ak nit diir bu toll noonu. nekk ci wetam dayoo bu day noonu am ci moom yéene bu tol noonu ba yàlla ñëw ci moom ci diir bu gàtt fu kenn foogewul ba pare muy wëlbatiku di ko néewal doole wala di ko nasaxal wala di ko jaarale feneen hmm. donc foofu ku ma fa xaar doo ma fa fekk je n'ai pas l'intention ni aujourd'hui en tout cas au moment bi may wax ak yow di xeex ak qui que ce soit pour des questions politiques la ma jàpp ni tey mooy sama doxaliin mooy jëlaat sama liggéey taxaw sama liggéeyu avocat saafontewaat ak sama njaboot regroupé waat leen ñu di ma mhm. gis di ma séen te du ma dégg du ñu ma dégg ci leneen lu dul li nga xam ni mooy sama métier te ma di ko def léegi mu mat ñaar fukki ak juróom. d'accord da sànq dégg nga wolof ci li ma laaj ci. maa ngi ñëw dama ne. waaw bu fekkoon damay xeex ak moom mais xeexuma ak moom. fasuma yéene xeex ak moom donc foofu doo ma fa dugal. Mhm. xeexuma ak moom fasuma ko yéene. ba ñu jëlee ci gouvernement booba maa ngi màkk lu nekk wax nañ ma ko mais dégguloo ma d'accord bi wax ji demee ba bëgg jéggi dayoo ci laa dem fa mbaxane nekk benn am seen mbokk boo xam ne ci presse la nekk moo yóbbu ko ba porté ko plainte gañe ko mu def opposition wala appel ñoo ngi xaar d'accord alors est-ce que xeex ak moom passé na xeex non non non je veux dire une question laa bëgg a foofu ndax xeex ak moom passé na ñu dem ci élection locale Benno Bokk Yaakaar nga bokk ci APR. ñu am seen mbër à Saint-Louis. waaw yow nga taxaw def fas jàkkaarloo ak ñoom. alors Macky Sall moomul Ndar nekkul candidat à Saint-Louis. mais am na fa candidat déglu rek fekkee boobu laa jëm nag may may rek. waaw nekkul Ndar dëkku fa nekkul candidat à saint Fatick la dëkk Ndar kenn du ñu wax kii mooy sama sama candidat kii moo ñu defali man dépassé naa foofu. weesu naa foo xam ni nit day nekk ndakaaru ne ma diw mooy suñu candidat voté ko topp ko yaay dunguróom di ko téye saagam di ko tàccu dama ko deful defuma ko tey defuma ko ëllëg su fekkee loolu mooy xeex ak président de la république saa yu ndar soxla ay doomam danaa yëkkati sama loxo ne bëgg na yëkkati naa ko ne bëgg na waa ndar yaakaar nañ ni la mu leen proposé méngoowul ak lu ñu bëgg votel nañu diggante Macky diggante Mansour fay ak Braya dem nañu cour d'appel Braya Mansour Faye gagné na je pense que le problème est réglé mm mais personne kenn du Macky Sall du keneen du ma ni fi ngay xool mais gis naa ak loolu du forme rébellion du forme lan non non non dëkk Ndar juddoo fa mais doo rek dëkk Ndar am na ñeneen ñu fa dëkk bokk ci APR mais ñoom dañu rangé wu jàmbaar waaw xaaral ma wax la dama fa dëkk juddoo fa fas yéene rangu ci mairie bi laaj ko wax ko tudd ko dox ci je ne reculerai pas le président xam na ko bi ma gisee ak moom bisu kasu rajab on était à quelques encablures des élections mais waxuma bàyyil maire bi toppal ci gannaaw ma soo jàppale ko du ma ko def mais waxuma ko président xam na ma man xam naa ko xam naa lu ma koy sant ak lu may tere kenn du ci gan ci sa morom kenn du ci gan ci sa morom bis bu laajaatee leneen beneen position boo xam ni dinaa ci taxaw contre ko danaa ko def parce que la may yaakaar ni moo tax ma war a taxaw mooy dama yaakaar ni ci sama dëgg laa nekk amaana ma juum. d'accord d'accord ba ba nga laajee itam di doomu ndar bi nga laajee itam di doomu ndar ndar gis nga résultat yi nga xam ne jox nañ la ko fa. waaw après bi nga xoolaatee résultat yi amuloo ci kersa. ndax résultat yi euh, amuloo ci kersa même pas mille voix. nga am ko nga am ko en tant que ak ni ngay waxee ak lim la jaral ak yooyu yëpp. ndax ndax amuloo ci kersa. xalaatuma sax aw ma ci benn kersa xam nga lan moo doon sama kersa. waa Ndar ne man kat soxla naa sama ay doom xool ci ñoom kan laa mën a jox sama bopp ci juróomi at yi nekk ci kanam. Mhm. ma ubbi sama ngunu dugg sama suuf gon la laqatu ne bu ma kenn dégg. parce que amaana su ma demee duma am parce que toll nañ ci ñaari at yoo xam ne exercer tuma benn activité xëy na sax lu ma campagne dana jafe. amul kenn koo xam ne def naa ko directeur général wala def naa ko ministre wala def naa ko député wala def naa ko conseil économique et social environnemental mhm. bu ma jógul taxaw am lu ma ci def amul kenn ku ci jàpp ku dul ay xarit yoo xam ni suba ngoon guddeeg bëccëg maa ngi seen kaw donc je savais fondamentalement que su ma demee avec le ma le manque évident de moyens mais dana am foo xam ne foofu laa yem ci élection je le savais mais loolu dafa tax résultat bi mooy dafa tax ma bañ a dem taxul ma bañ a dem bu doon benn fois dana doon sama bos te dinaa voté ci. ou 1800 et c'est pas négligeable. d'accord pour quelqu'un qui vient euh, candidat sans illusion. mais conscient que ndar la dëkk. d'accord ba tey monsieur le ministre ku mel ni Macky Sall est-ce que mënuñu ko méngale ci kàddu yi nga yëkkati ci bi nga xamee ni ñu ngi amal résultat yi parce que dégg naa la ci télévision Futur Média nga félicité Braya alors que résultat yi demagul fenn alors que mi ngi nekk ci ballottage boo xam ni leeroon na ci digganteem ak Mansour Faye nga jël télévision Ahmed Fall braillé parce que gagné na élection yi. Pape li nga li nga li nga li nga dégg noonu noonu noonu laa ko waxee dama ne en l'état actuel des procès-verbaux en ma possession Ahmed Fall Braya est largement vainqueur su doon bëccëg danaa dem këram félicité ko naan ak moom ataaya il a fallu ñu indi ay gendarme ay alkaati ay dragon à Saint-Louis pendant près de quatre jours balaa ñuy xaar ba waxtu dog jot ba nit ñi di làkk suntu ñu soog a publier résultat yi xaaraat ay semaine pour que commission bi génne xaaraat ay semaine pour que cour d'appel atte gis naa Braya bërki dem ci audience bi ñëw na foofu di encourager waa PDS yi nee naa ko jàmbaar def nga li nga mën mais jàppal ni mbir mi nekkatul sa loxo je le lui ai dit. mais ku la dégg dafa mel ni mbir mi jaay doole moo ko foqati ci loxo. mais dañ ko foqati nga may wax jaay doole mais lu mosul am ndar moo fa am comment élection yi ñoo ngi ci élection yi tey balaa 18 heures mais ndar fees dell mel na camp militaire fees dell ak GMI fees dell ak gendarme fees dell ak LGI des camions drago à la place Pointe-à-Pitre mais c'est du jamais vu xanaa du élection rek mais Dakar moo gënoon tàng fépp yooyu amu fii alors 2014 ère Macky Sall nga may wax foqar ci mais je te dis dañ ko foqal ci à Saint-Louis nga naan ma air Macky Sall. ah mais bien sûr foog ñu jaaxle ci loolu. loolu moom nit mënu ko xalaat. mais yow ci sa gémmiñ l'implication l'implication président ni mu impliqué ci élection yi mais c'est du jamais vu. ah bon mosoon na am élection législative ñu fexe ba. ñu naan moom implication bi nekkul lu visible nekkul lu ñu ah, gis. ci laa jëm waaw ma ne. c'est une première dans l'histoire du Sénégal pour des élections locales président de la République impliqué wu. à ce niveau avec tant de moyens mis à la disposition mosoon na am élection législative booba président Abdoulaye Wade moo fi nekk ñu fexe ba du dem campagne mu jël lu mel na takkandeeram def ko ci bulletin yi pour ñu mën ko ràññee yooyu moo far jóg moo far jeex élection localité élection gox la kenn du ni ña nga fa am bu leen jàppale mais yow amal foo xam ne gannaaw da ne élection yi yow incombé wu la waaw ndax ci ay conséquences am kenn mënu la ci sonal. Mhm. da ngay fexe ba jàppale sa parti rek te na sax. d'accord mais propos yi nga wax nii bu la ci citation fekkee est-ce que mën nga ci génn parce que le fait que nga ni xaalis bi ci Macky Sall génne. bari na. est pare nga pour mën a. pour mën a loolu lu yomb la. mais mais loolu jaaxal parce que man gisul ko dëkk mais mënu ko gis doo militant donc loo ci meeting yi nekk loo ci bagage yi sëñ bi xamuloo ñu daje woon que bu ma dugal ci révélation déballage du ma ci dugg bu lan ma yónnee citation Pape. nañ waxtaan suñu waxtaanu bopp. ma ah, dem mais mais c' ma yónnee woo may dem wuy ji nañ àggale buñ ma woowee rek ma wuy ji bul sax sonn mais bul dugg foofu seen daf ñuy perdre le temps Macky Sall sama waay la teg ko fee. non non xam nga aussi non non non na la mais bëgguma nga taxañ ma aussi. parce que bu ne ma tout le temps nga may wax sama waay la ba pare te du tere boo jekkoo fët boo jekkuwaatee man daf may jaaxal. ma boobu waay mais soo amee sa waay doo ko wax dëgg sa waay da koy raay rek. bu may waayanteeg yow te doom wax dëgg duma la seet si su may waayanteeg yow di la wax sama bopp te yow la nga yaakaar doo ma ko wax la may sama njëriñ doo ma ko wax laataa méngoowul ak la nga yaakaar ni soo ma ak sama sago loolu lay doxal dama lay baax seeti keneen koo xam ne Ablaye Guèye la tudd ñu di ko wax foom mu lay wax dëgg gu weex xat boo ko doxalee xëy na boo ko doxal mu baax d'accord mais bëgg naa ñu dellu si tuuti ci sa ci biñ lay démettre ci say fonction en tant que euh, force euh, mini euh, euh, naka la la fekk nga jot tel nga jot message bi que dem jële nañ la ci sa post waaw mën nga ñu fàttali rek loolu naka nga ko dundee ak. ndax amoon nga ci mbetteel ak lan moo si xew moment boobu. gis waaw maa ngi maa ngi ziar ñi nga xam ne ñëpp nag sama seexu màkk lañu woon te ma def ak ñoom mun na tey ci ëllëg sa ñu jële ma ci gouvernement bi. bi ñu dajee mun na ñu ci bare bu ma tasee tasewaatee ak jom dañ naan mais maître yow donc bi ñu dajee mun na donc ñu doon tàggu dafa mel na xamoon nga ni dangay ngay ci gouvernement bi ma ne ko non ma ko woon itam xamuma ko woon ndax mënuma ko xam ba ma toogee ànd ak sama soxna premier ministre moom ma woo Abdoul Mbaye ne ma ah ça monsieur le ministre ma ne ko bien très bien monsieur le premier ministre mu ne ma ci président laa jóge dañuy def remaniement bu woyof rek ci ngoon si te jàpp nañ ne bokkatuloo ci gouvernement bi on dit alhamdulilah merci beaucoup. Abdoul Mbaye moo la informé. ci waaw moo doon premier ministre à mm-hmm. Mm-hmm. wax ko sama soxna nu ma alhamdulilah ñu jóg yeesalaat suñu ay njàpp defaru bu baax daal di dem defaat suñu tawaaf fàttata rek daw safa def suñu yëpp ñëwaat toog ma informé sama secrétaire général. au ministère, informer le directeur de cabinet, le chef de cabinet, le chef du bureau du pèlerinage, l'ambassadeur du Sénégal en Arabie Saoudite, ak le consul général en Arabie Saoudite ne leen delloo naa leen commandé yi ndax am na xibaar boo xam ni wax nañ ma ko mayetuma may commandé lenn ci seen biir donc euh, delloo naa leen bagages yi alhamdulilah. noonu laa ko dundee toog woo sama njaboot. ak àcc fekk yow aussi nga am fa ay responsabilités yu am solo. en tant que ministre des affaires étrangères waaw waaw noonu la noonu la nguur moom noonu lay doxee bi ma ko waxee moo woo sama wayjur woo sama ay wasila wax leen ko ñaanal ma man leen kon nag baax na sëriñ ne ma fexeel boo ñibbisee ñëw ci man boo ñibbisi daal di dem ci moom mu jox ma ay ndigal ci yooyu laay dox ba léegi. Mhm. amul benn coono. ndigal yooyu mooy bul wax na nga noppi wala naka la demee waa xam nga buñ la woowee ci biir néeg mhm. nga nekk kilifa kenn kenn ñetteelu leen du fii nag laay ñëw di d'accord waaw mais monsieur le ministre aussi décision yu mel noonu boo àndeek nit pendant quatre ans ngeen ànd ko ngeen jël ngeen jël pouvoir mu mën a jël décision bu toll noonu euh, normalement faute ba rëy na lu ne wax nañ ko fi nag non dama ni eh. loolu moom loolu moom yaakaar naa xale yu ndaw yi ñuy seetaan sax wala keneen war na xam ni njombe lu moom nga def moo ko war a mun waral. loolu la ñu wax ci rajo yi wax ko ci télévision yi wax ko partout loolu moo tax ma am kenn ci yéen wax naa la ko sànq. ku bokk ak yéen liggéey. Mhm. yóbbu ko tribunal ba ñu condamné ko. loolu moo tax ba ma mujjee gisee ak président de la république muy bésu Kazu Rajab bii ren ci la ma soog a wax lan moo nekk ci moom pour la première fois. vingt mois après ma ne ko waay bi lii mënoon nga ko gën a teel ma leeralal ma leeralal ko boobu ak yeneen ak yeneen ak yeneen. ci jataay bi ngeen toog. loolu toog nañu waxtu genn wàllu ma ak moom. di waxtaan calmement man ma ah, lii yëpp de xaw ma koon man ko anoon ah, noonu la demee jeex de tàkk weesu naa fu muy defee njombe ndax xam naa fa ma bokk te xam naa li may xaar. te dara yombul ci sama àdduna lu nekk dama ko xeex lu ma ko bëre kon du ma nekk ci lu noonu ba ma nekk étudiant nekkuma ci ba may wut liggéey nekkuma ci ba may taaba taaba te am soxnaa ki doom nekkuma ci xaar ba Sénégal dénk ma kàddoom bitim réew may dugg ci ay njombe yoo xam ni kersa lay doon ci réew mi xalaatuma ko mënuma ko sañuma ko d'accord te defuma ko boo nee waxtaan am na gindi ko waroon na am kon jeex na je que président wax na ma enfin la taxoon mu doxale noonu tontu naa ko leeralal ko boobu leeralal ko yeneen donc jàpp naa ni fi mu nekk leer na nañ sama diggante ak moom amatul benn lëndëm depuis lors diggante waat ngeen fi non mais soxlawul président de la nekkatuma dara ci réew mi loolu itam barke sëñ Tuubaa non man nga wax ni soxlawul dara boobaak léegi déggante woo leen kasu rajab ba léegi ci ñaar ñu waxtaan ba jàpp ni gindikoo am na te déggante wuñ mais jeex na mais gin gindante boobu taxul ma war a dellu si liggéey ak moom wala defi leneen je te di je reprends ma robe d'avocat benn wax naa ni j'entends rester exclusivement maître de mon destin mhm. il faut quand même que que ñaari xarit réeroo woon nañu ñaari at gindante wuñu mais jeex na ku nekk ngi topp yoonam moom yoonam mooy yoonu président de la république man sama yoon mooy yoonu avocat de la république mhm. vraiment jàmm na ñooy amul coono amul coono yaakaar nga dellu waat ci wetam ba leneen mën ci xew ci ay lu war a mën a am non sóoraaleetuma loolu sax nag maa ngi avocat laa léegi à temps plein sóoraaleetuma ko sax kon bokk nga ci ñi njëkk a dund la patrie avant le parti eh, la patrie avant le parti gawma ko on n'a jamais mis la patrie avant le parti c'est pas vrai lu tax nga wax loolu non parce que la la notion de patrie d'abord découlant de cette communalité de territoire ñi nga xam ne ñoo maasendoo bokk réew jaxasoo ay làkk jaxasoo ay xeet jaxasoo ay waaso jaxasoo ay askan mhm. waaye bokk fa ñu bokk muy le même espace ñooñu dafa am loo xam ne mooy seen cër ci biir république bi république mooy loo xam ne ñëpp ñoo ko bokk mais gis naa ne ñamu ko bëggoon taxawee ba ñuy tàmbali ak na ma gis muy doxee nii méngoowul ak suñu bëgg-bëgg donc il faut ñu defaat loo xam ni dañ koy wax la refondation de la république jiital réew mi d'abord bàyyi slogan yi ay la parti ça n'existe pas parce que ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi ca njëlbeen ñooñu ay bañkat lañu. lan nga jàpp moo koy firndeel. la patrie avant le parti. waaw euh, slogan la mais du réalité. du réalité parce que ñun ñi nga xam ne ñoo bàyyi woon PDS ak ñeneen ñu jóge feneen ak ñu bare ñoo xam ne mosuñu politique. la ñu ko def tax ñoom ñëpp ñu bàyyi lañ doon def ñëw ànd ak moom xeex ak moom yéene ko mu jël réew mi ëllëg. Mm-hmm. mais ñooñu ci patrie bi la ñu bokk ce sont des bras extrêmement vaillants de la patrie on ne peut pas parce que jël nga réew mi tey rek ne tu vas les exclure parce que ñoom c'est le parti alors il faut aller vers la patrie c'est quoi la patrie nous sommes tous parti intégrante de la patrie et pendant longtemps nous avons été le miroir de la patri nous avons été les bras vaillants de la patrie waaw pendant longtemps ku xam ni am na loo naw ci sa bopp boo ñu gisee gis mbay Ndiaye gis Cissé Lo gis Macky mu ànd ak ñu xataraayu di ko wuti. Mm-hmm. ak suñu ay coono ñu koy gàddu di ko yóbbu police di ko fouiller aéroport nga war xam ne ñii am na lu ñu bëgg am na lu ñuy bañ mais loolu moo fi nekk ba léegi ñooñu mënoo leen seppi ne bokk ñu ci patrie bi parce que parti ngeen seq ñun seq ñu moom parti parce que ba ñuy ànd ak moom parti taxawul partie amul. Mm-hmm. loolu rek la du leneen. tey booy xool parti bi nga xool par exemple si <laughs> Badara gis loo ko ci biir gouvernement bi ci conseil des ministres nga xool gisuloo fa ku mel ni mbay Ndiaye nga xool gisuloo fa ku mel ni Moustapha Cissé Lo nga xool gisuloo fa ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne xëy na yaa ma leen gën a xam parce que maîtriser mu parti bu nga xam ne moom ngeen bokk lan la lay jox ak ñi nga xam ni ay bopp yu bees la nga ko ay bopp la yu bees nga di ko fa gis lan lan ngay lan ngay yëg foofu ci loolu. damay damay jàpp ni d'abord jamono mooy dox. léeg nit ki dana fàtte démb wala mu réere ay mbir mais jàpp naa ni mënul am ñoo xam ni mënees nañu koo jàppale ci liggéey bi joxe seen bopp joxe seen bakkan lu wees ñooñu nga xam ne tudd nga leen te gisatuñ leen Mbaye Ndiaye ngi ci moom ba léegi Moustapha Cissé Lo est un éminent député du Sénégal et de la CEDEAO je pense que il participe ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci li nga xam ni ñooy jàppale président Macky Sall c'est vrai wute nañ ceeg yow mais nag nañ waroon xëj itam des na waaw mais man xëy na sama wàll mooy jeex na ci côté boobu waaye li nga xam ne suñu borom dénk na ma ko ci métier ubbeeku na maa ngi ciy dox merewuñ ko ci leen ñu ngi koy ñaanal jàmm. mais man nag am na aussi lu ma bëgg nga leeral ma ko lu ma jaaxal la. xaw ma ñeneen remarqué nañ ko ou en pleine campagne électorale ci 2012 man dama gis que sa sa sa accoutrement c'était plutôt euh, ABC ci casquette ci ci kii et tout du gisuma APR ak yow. lan la woon loolu. xam nga xam nga. li ma wax yaakaar naa ni. xam nga lu leer nga wax xam nga man du ma mandigaraay <laughs> mandigaraay mooy mooy masque waa Ndar dañ ko daan def tudd ci mardi gras tudde ko mandigaraay man Alioune Badara Cissé la tudd. sama sama initial mooy A B C. mais nga bokk ci benn dama lay wax rek bu ñuy wax APR waaye maa ngi ñëw sëñ bi. waaw bu yàkkamti. Mhm. APR amul tenue. ah bon. amul tenue. mais ab slogan am na. non c'est-à-dire que colin nga may wax ak casquette ak yëre APR je veux dire maa ngi ñëw pop pop bul jàkkamti da koy ñëw yaay sama waay APR amul tenue man Alioune Badara Cissé la tudd mhm. bañ ma xamee ba léegi bu campagne jotee sama casquette ABC laay laay laay laay sol sama gabardine américaine ak sama tenue commando c'est connu je ne changerai pas c'est pas parce que APR laa bokk rek que damay solu comme waa APR niiru APR sol casquette ap defar du ma ko ma koy defarul te man ma am tur am sant. Ah, mais noonu mais noonu nga noonu nga loolu noonu. loolu est-ce que itam amul lu mu jeexital. Eh, amul amul waaw mën na nekk mais loolu du lu muy lijjanti yow papa ngay ngay doon ba foo mënti dem papa ngay ngay doon. Mhm. yaa dàq sañse Mamadou Ibra Kane taxul nga wàññi sañse yàlla la ko bindee da nga ko mën. mokkal ko judd ci la non dara xale lu jóge c'est normal la différence se fait à la marche c'est tout à fait normal donc <laughs> bu ma yàlla dogalee tur bu mel noonu ak initial yu mel noonu mais sëñ bi nag du ma ko suufeel nag di bugg niroog Masamba ak Mademba du ma ko def <laughs> mënuma ko euh, te lii lii li ñu naan liy tas sëy nuyoo na ca njalbeen ba li ñu gis ci li yàqu ci seen diggante est-ce que du ci njalbeen ba ak yu mel nii moo ko ab moo ko indi woon euh, jàpp ma ne am na ca la mu ma wax ne moo tax ñu réeroo ci 29 octobre 2012 lu feeñoon la ci njëlbeen gisuma ko su ma ko gisoon ñu wax ci man su ma ko ràññewoon maa ciy njëkk wax. parce que man fekk naa ba tey moom mu am keneen ku mu joteel en plein conseil des ministres man ma jóg beroog kooku wax ak moom. dalal ko dellu si en conseil des ministres demander la reprise des débats en conseil introduire pa kooku jégalu maasale digganteem ak président ba kenn déggu ko fenn amul benn rajo benn télévision bu ci wax te yàggul donc euh, man mënuma di rafetal digganteem ak ñeneen di ñagasal sama diggante ak moom ça n'a pas de sens. d'accord am na li loo xam ne itam yaa ngi koy dégg fan yi muy la dynastie Faye Sall d'ailleurs sax président wax na ci bu yàggul. mi ngi wax ni élection yi prouvé na nii loolu war na jeex pour pour tontu ci loolu itam wax na ni élection yu ñu génn war na joxe firnde nii li ñuy wax dynastie fay Sall amul. alors dynastie Faye Sall boobu nga xam ni di nga koy dégg te li koy di ñu jàpp ni itam li ko sabab mooy ku mel ni Mansour Faye nga am ko maire fële ca Saint-Louis Aliou Sall nga am ko maire ci Guédiawaye Abdoulaye Timbo nga am ko maire fële ca Pikine Adama Faye doon laajte <laughs> fële nga xam ni moo di Grand Yoff euh, réponse bi mu la jox doy moom. xam nga ci élection locale yi dem nañ ci askan wi tànn na leen. xam nga bu ñu nee Mansour fay candidat président la woon à Saint-Louis danaa ko jàpp béral ko nangu ko mais bu kenn ne Alioune Sall moo doon candidat Macky Sall Guédiawaye Alioune Sall s'est battu tout seul. Mmh. il est allé jusqu'au bout malgré la volonté exprimée ci ñu bare. Mmh. il s'est battu comme un grand il a réussi waa Guédiawaye fal ko jox mmh. waa Ndar ñun. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen dañ doon laaj ndar laataa Mansour fay moo doon ma ki Sall mais waa ndar moom la ñu jël teg ko seen kanam xëy na am na ay moyen ak yeneen yu mu teg seen kanam yoo xam ne ñeneen ñi mënuñu ko mais y' pas de problème ñun la doon suñu cër rek mooy na bëgg nañu maintenant bu waa Sénégal ñëwee yaakaar ni dynastie war nañ ko fi taxawal te ñun ñu bañoon ko démb ak ki démb mais c' est parce que nag dañu dellu gannaaw bu baax a baax baax a baax a baax. kon da ko dëggal non dynastie daf fi mënul am loolu laa la wax. li nga fi dégg kon lu mu lay nuru. mais parce que diw nekk na maire fii wala mais maire mooy lan maire c'est rien du tout xam nga fan la ñuy xaar aux prochaines à la prochaine élection présidentielle foofu la ñuy toog di xaar di xam ñun fan la ñu jëmee ak ñan la ñuy war a àndal pour jëmee ñu fenn mais parce que président bëgg na gorom nekk maire fii baax na. gañe ndar jël sa goro def ko fa maire taxul nga gañe ndar élection présidentielle Braya ngi ci fukki junne ak ñeenti téeméer ma Dièye ngi ci juróom-ñetti junne ñoom ñaar rek boo leen boolee muy ñaar fukki junne contre ñaari font fukki junne ak ñetti ñetti junne fukk ak ñetti junne pour Mansour donc il faut ñu repenser loolu yëpp président itam moo war am doxalin boo xam ni dañ lii kat famille la lii liggéey la. te da nga gis ni defu ko loolu. deful deful wuute wuute boobu. ku nekk ku nekk nit nga. Mhm. am na xëy na foo xam ni foofu la mën a yem. mais xëy na essayé na ay jàmbur dégg nañu explication ci at yu yàgg yi jéem nañu ko nekk comme ministre mënuñu ko moo tax ñu jël doomu président Wade jiital ko il faut qu'il arrête les collaborateur dans ce pays ne manquent pas am na ñoo xam ne jéem na leen sama classe gi doyuñu ko di dàq na leen mais du njabootam rek ñoo fi nekk. nga def attention bu ñu waree tabb député ndar Mansour fay mooy choisir kan mooy nekk député ndar suñ jëwul ay directeurs généraux Mansour fay mooy décider kan mooy nekk directeur général et cetera et cetera yaa minimum ña nga xam ni yaa leen bo yaa leen yaa leen bokk njaboote même bu fekkee ànd ba doon am amatul mais léeg-léeg nga am moo taxoon Braya wax wax ju rëy jëni ndar kenn du ko dolli ci may gu njëkk waaw waaw dégg naa Braya wax na loolu moo ami Bamba itam wax na loolu mais. du ñu nangu daal dara ñu di ko dolli ci may. waaw yooyu yooyu yooyu combat de campagne la c' était bien c' était très bien on a battu une belle campagne a Saint-Louis. d' accord campagne bi safoon na sax. d' accord d' accord alors wax nga ni ci élection présidentielle yi la ñuy xamee nag euh, voilà ndax euh, li mu def lan la ko mën a jural élection yooyu euh, tam président àdduna ci wax na ci maanaam ci mandat bi ku ne xam na ni ak la constitution. Euh, juróom-ñaari at la ko ci may moom mu am yéene ci juróomi at yi ngir yemale ko fa wax na lu jëm ci référendum am ñu jàpp ni loolu yàq xaalis la am na yeneen possibilité yu fi nekk euh, ndax lu mel ni assemblée nationale mi ngi fi lu mel ni moom itam mu dem ba wa jub élection yi démissionné mi ngi fi euh, yaa ngi xaar loolu wala lan nga gis ci li ñu li ñu dëgmal ci ci alors ak président président nee na juróomi at lay def pour mu def juróomi at dafa am ponk ci constitution bi fixe la durée du mandat du président boo xam ne faw ñu soppi te ponk boobu bañ koy tëral dañu ne ponk bii ak yeneen yi maaseeg moom ni référendum moom référendum rek moo ko mën changer mhm. référendum mooy élection daanaka population yi ñëw ñu poser leen question ndax lii nangu ngeen ko lii nangu ngeen ko lii nangu ngeen ko ñu tontu ci question yooyu loolu rek moo ko mën changer amul assemblée nationale mënu ko incompétente la démission dégg naa sama copain di wax nañ dafa war démissionner mais fu muy démissionner jëm mënul démissionner parce que su démissionner président assemblée nationale moo koy wutu te président assemblée nationale bu koy wutu day fekk loi bi nga xam ni moo war wàññi mandat bi de sept à cinq ans toogagul kooku bu toogee mi fan quatre-vingt-dix yu ñu ko may pour mu organiser une élection lay def. Mm-hmm. on ne peut pas. donc faaw référendum faaw pour loolu lay def buy def référendum day fekk moom ba tey mi ngi toog nekk président de la république. waaw mën a superviser élection. d' accord mais monsieur le ministre bu fekkente ni dañuy nekk ci procès Karim Wade bu ñu naan bët setagul ci ñu bëgg a xalaataat référendum boo xam ne war nañ ci jëm référendum bu ñuy gindi euh, ci mandat président bi ndax loolu du indi instabilité lan la mën a jur ci réew mi nga xam ni deux ans et demi yëpp daanaka nag. du ma wax ni dara taxawu fi parce que du man maa koy jugé mais daal ñuy ñaxtu bari nañu. mais loolu lu ñu waroon xam la parce que dafa am calendrier républicain boo xam ne moo fi dox moom bu neexoon mu organiser référendum ci fukki fan ak ñaar yi nga xam ni CREI yi nee na daf ci noppalu convoquer le collège électoral organiser élection yi bés boo xam ni defuñu dara loolu foog mu di ko def mënta ñàkk bu weesoo procès Karim weesu référendum y a le procès du président Habré qui est quelqu'un qui n'a rien fait. encore. mu ngi fi toog rien fait moom. mais non waxuma defu dara waa réewam mais président seen Habré def na fi fukki at ak président Abdou Diouf loo ko déggal toog wakaam jàpp njàmburam dem Tiwaawan dellu si def na fi fukki at ak ñaar ak président Abdoulaye Wade de temps en temps Wade yëngal Serigne Mansour yónnee ndaw mu taxaw ñun ñu ñëw rek defaguñu sax juróom-benn weer mel na ku ñu xabtal ci kaw Ah, c'est le premier élément de déstabilisation de l'équilibre politique bu Sénégal et sous-régional chef d'État yu bare dañu am dañu am kersa parce que ñu bare ci ñoom Sénégal dafa nekkoon seen refuge bu ñu amee njàqare seen réew rek dañu daal di daw ñëw fi lañ tëj président fi lañ tëj président fi lañu daw ñëw mhm. léegi ñu jàpp fi après ñoom ñemeetuñu fi ñëw seen ay ndimbalante yi daan jaar ak yëpp yëpp fii la daan jaar mais bu ñu gisee ñu téye Aïdara Sylla ci chèque yoo xam ne Abdoulaye Wade moo ko moom ñemeetuñu fi jaarale seen yëpp parce que danaa ndegam kii kii lay def lii waxatuma ak ñun yooyu yëpp dafa bokk ci équilibre réew ak estime bu réew di am ca réew yu ko seq mu war ci bàyyi xel te loolu amul njëpp ça n'a pas de prix. saa est-ce que loolu du dem sellal ba tey sellal itam am na ci solo problème mu chèque wala problème mu leneen itam bu fekkee ci sellal lañ ko teg ak loolu war nga ko mën a nangu. ci yoon looy àtte chèque bu 2 milliards bu Ablaye Wade président de la République mooy lan. mais mooy ñu sellal alalu réew mi. mais alalu mi chèque au nom du président de la République pour 2 milliards et poussière ko jomb un président de la République. yaa ngi ma jox ay exemple Hissène Habré certes que lu am solo la euh, mais mise en demeure Abdoulaye Baldé itam war na bokk ci li nga xam ni mën na jur leneen xanaa. gis nga loolu ce sera l'une des grosses détonations boo xam ni ñu dal ci semaine bii di ñëw ci nga xam ni mise en demeure Balde ci lay jeex parce que mën naa gëm ñu jàpp nit ne ko yow sa compte lii ak lii ak lii ak lii moo ci nekk justifier ko par rapport ak revenu yi nga xam moom nga doon am en tant que commissaire de police en tant que secrétaire général de la présidence de la République en tant que directeur exécutif de l'ANOCI en tant que inspecteur général d'État mais li nga xam ne sa soxla moo ko moom ngeen marié su le régime de la séparation des biens ñu ñëw accuser sa soxna ne am na moom un milliard te moom muy pharmacienne depuis plus de vingt cinq ans ñu ñëw ne la li mu yor yow yaa ko war prouver lu ci sa yoon am benn waay boo xam ne mi ngi yor ay mbandam di nettoyer ay fosse à Saly ñu évaluer ko li nga xam ni moo ko moom yow yaa ko moom justifié ko mu dem jënd appareil yu rajo nee na mi ngi ko wutee à dix huit mille euros dix huit mille cinq cent euros. Mhm. installé ko tuddi ko Zik ZIG FM à Ziguinchor ñu leen jox sax mise en demeure parce que fay ñu lu yaasi ñu ñëw évaluer loolu à cinq cent cinquante millions ils sont pas sérieux mhm. je pense qu'ils sont pas sérieux et dans cette affaire li nga xam ni président bëgg na ko ci jàmmal réew mi. jàmmal Casamance te war ci xotti tànk tubéyam il faut mu def attention waxuma Balde kenn du ko laaj foog ñu laaj ko mais nañ ko laaj loo xam ni ci tam lañ ko fekk kër bu nekk ci turam bañ ko sosal bañ fi indi yeneen yoo xam ni mën na ñàkk. waaw lan moo tax nga jàpp ni lu mën a indi. mun na mun na rëy ba romb mbiru Karim Wade. non mënu ko may comme da nga ma boobu. waaw te ma am ci ay tegtal. waaw ma mën la wax ne boobu. nañu ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bu Karim moom wax nañ ci waxata ci d'accord faw xaalisu réew mi nga xam ni jaar nañ ci loxoom mu wax ni fii ak fii la ko jaarale à condition xaalisu réew mi tegu ci loxoom donc loolu bu ñu demee procès daañ ko setal ba mu set wecc ñun ñëpp maase nañ ñi ku ñu dénk suñu xaalisu réew faw nga wax foo ko dugal mhm. waaye nag yoon wa ñu la war teg nañu la fa teg te maase kook ñëpp d'accord ni nga gisee itam mise en demeure bi xanaa kaso rek moo ci mën a topp de pour Abdoulaye Baldé c'est vrai que yéene wu ma ko mais bu ñu ah. xoolee ñi fi jël mise en demeure yëpp kaso la ñu dem. je euh, ne sais pas muy Karim Wade xamaguma maa ngi maa ngi xaar am na avocat am boo xam ne moo koy taxaw ba mu déposé ko CREI yi procureur spécial moom mooy xool ndax tontu yi euh, dal na xelam wala dalul xelam bu dalee xelam mu bàyyi noonu bu dalul xelam da koy yóbbu commission d'instruction ñu desee na ko mandat de d' accord alors. mandat de dépôt mandat de dépôt mën nañu ko def sous contrôle judiciaire aussi hein. comme de toute façon député la nangu nañu immunité interdit de sortie du territoire et cetera Baldé itam jeexal nañu ak moom mënatuñ ko def leneen lu gën a métti li ñu ko teg ba noppi. Mhm. c' est dommage. c' ñu ngi toroxal gor yu bare. Mhm. monsieur le ministre ci bi nga xam ne itam yëkkati nañ ay kàddu mu jëm ci euh, kilifa diine yi. rawatina ñu jàpp ne ay citoyens yu ordinaire lañu su ma juumul am na benn sortie boo ci defoon à l'étranger ci benn vidéo maa ngi ko xool nga doon ci indi ay leeral itam da nga jàpp ni itam cër bi foofu dafa dafa des ci diggante pouvoir bi ak ñi nga xam ni ñoo amee diine ji. ñaar la ñaari mbir benn bi mooy ba mu waxee wala bañ ko wax looyee ni citoyen marabu yi c'est des citoyens ordinaires booba maa nekk ministre des affaires étrangères Kazu Rajab ma dem Touba diriger l'équipe gouvernementale euh, foofu laa leen waxe ni président warul mën a jàpp ne marabu yeeg ñëpp a yem ndax ku ci dudd ci ñun ñoom ñoo ñuy tudd ñoo ñuy jàngal alxuraan ñoo ñuy feral ñooy bind alxuraan ci mburu jox ñu ñoo ñuy euh, lijjanti bu fekkee ñoo suñu waa jur yi am nañu ay rëq-rëq ñoo ñuy maye soxna ñoo ñuy tudd sañu ay doom bés bu suñu borom dakkalee suñu ay fan ci kaw suuf ñoom ñoo ñu jullee jébbal ñu ko donc ñooñu amul kenn koo xam ne war nga leen mën a yemale. Mhm. c'est clair def naa ni foofu loo wax ji fayee. Mhm. depuis lors beneen bi mooy xëy na bi ngay wax mooy bi nga xamante ni ñu ngi sàllul Serigne Saliou Mbacké ak njabootam. Mhm. dans la l'affaire de Dangote. booba génn naa ci gouvernement bi ma dem Paris ci benn congrès boo xam ni. waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñoo ko doon def. ma ñëw foofu foofu laa defee la précision selon laquelle maa ngi déplorer li nga xam ni ñi nekk ci nguur gi ñu ngi koy wax jëmale ko ci waa kër sëñ saaliw rawatina jëmale ko ci sëñ Moustapha saaliw ak sëñ Cheikh. et que mënuñu nangu ka nga xamante ni leer nañ ne ñun la ñu yor ci loxoom jaar na ci muy sëñ Saliou Mbacké ñu ñëw tey ngir mbiru suuf. wala pour jàppale ku jóge nigeria wala yu demee noonu mu am par parparloo ba la nga xam ne ñun moom la ñu gën a fonk ci suñu ay njiit suñu ay kilifa diine mm-hmm. ñuy xotti seen i surtout bu mm-hmm. fekkee nekkatuñ fi ma ñaawlu ko wax ko wax bu dëgër ci na mu gën dëgëre mm-hmm. d'accord euh, xam naa ni dañuy dem ci question yu mujj yi rek mooy guvernement ñetteel bi euh, ak euh, ki nga xam ne moom mooy Mohamed Dionne taxaw na am nga ci yaakaar gouvernement boobu ah Mohamed moom dama koy dama koy njëkk parce que def nañu ñetti at boobu booba Macky moo nekk premier ministre bi moom mu nekk directeur de cabinet ñëw wuutu euh, Malick Diop man ma nekkoon conseil spécial mu jigi ma dem nekk secrétariat général du gouvernement donc ñu am une collaboration bu rafet bu am solo maa ngi koy ñaanal man ngi koy ndokkeel d'abord di ko ñaanal ndam ci li nga xam ni moom lañ ko dégg ndax lu mu ci am ci ndam rek ndamu Sénégal lay doon. Mm-hmm. ndax toll nañu foo xam ne di soppiwaat gouvernement ci ñaari at genn wàll ci des ak yooyu jàpp naa ni du lu ko jarati donc ñi nga xam ñoom lañ fi am nañ leen ñaax jàppale leen rogganti leen wuta leen ay téeñ ba la xam ne dénk nañ leen ko ñu mën ko doxal Sénégal am ci ndam donc vraiment je je le félicite euh, président moom moo am capacité tabb ña ko soob jàpp naa ni ñi mu jël ñu toll nañ daanaka ci 40 ñu bokk nañu ci ñi nga xam ne ci Sénégal ñoom ñoo ko fi doy donc ñaan suñu borom ba kóllëre googu ak euh, yéene boobu ak kóolute googu laa bëggoon wax euh, mu sax dak d'accord ba ñun ñëpp ñu mën ci xaj waaw ci li ci li ci biir nag mooy ni nga xam ne noonu lu ñu tànn ñenn ñi ñenn ñi niñ leen fa jëlee ci élection la ñu génn mu mel ni ay sanction la mm. par exemple ñi perte fii ñi perte mm. fële ñu jëlee leen fa jël ñi nga xam ne itam dañu am victoire mm. forme boobu ni mu demee euh, am nga ci gis-gis loolu bien sûr yow ñoo ci bokk gis-gis pap xam nga président de la république boo nee ñoo ci bokk gis-gis rek mooy dugal de. non yaa ngi ci biir. président de la république dafa war a bàyyi di méngale ay promotion ak ay résultats élection yow da nga am partie boo xam ni bii mooy yoon bu njëkk daanaka parce que élection 2009 yi pareeguñu woon dañu demee. dekkal ngor demee benno bokk gis-gis demee benn euh, benno siggi Sénégal de façon bu nekk demee nañ ko dana am zone yoo xam ne sax suñu ay responsable daal lu ñu bokk liste ñoom ñëpp ñuy jànkonte bii mooy yoon bi nga xam ni c'est la première fois alliance pour la république jóg am ay candidat def alliance boppam ànd ak benno fii ñële dem seen bopp fi donc dañ leen war encourager ñi nga xam ni am nañu fitu bokk ci élection yi moo gën bu nekk ku perte rek ma raq sa ndigg ñëpp waaf topp waaye ñuy jël suñu ay maires yi suñu ay gox-goxaan di ko jox ñeneen ba boo xam ni soxla na ay nitam bu dee dëbu kenn du jóg parce que samp fa kenn kenn taxaw mhm. te itam ñaggañ yi barewuñu bare boo xam ni mhm. mën nañu remplacer ña ñuy dàq kon mën na am conséquence mais bu méttee méttee métti nous n'avons pas assez de gagnants pour remplacer les perdants li mu ña gañe ñoo gën a néew li mu ña perte te ñu nga xam ne ñoo perte perte ju dara parce que yore woon ñu woon dara demoon di wuti ki perte mooy ki nga xam ni maire la woon wala leneen la woon ñu dem élection ñu gagné ko. mais ki nga xam ne dafa bokk yow parti jóg yaakaar ni tey war na taxaw am lu mu tekki ci goxam gox goxaatam dem deewoo nga jëlee ko fa fii Dakar dem dikk kii lii kii laa bàyyi la ñuy taxawal ay ministre yoo xam ni mais extraordinaire qui ont d'ailleurs gagné je parle de Morgom qui a d'ailleurs gagné Nangalma qui a été ton directeur de cabinet qui a été ministre des transports des infrastructures qui a été ministre de l'environnement et de ñu bàyyi ko muy flotter noonu te dana am loo rocc ci moom loo xam ne ëllëg boo ko soxlaatee maanaam meche bi nga xam moom ngay taal pour que lii mën a tàkk mèche boobu mooy dagg tif lay def da ngay ñëw taal sa interrupteur làmp du tàkk parce que am na loo fa jëlee loo xam ne mënatoo ko restituer bu doon alxuraan dam naan la sirru bi da nga koy rocc. d' accord alors nag am na lu ma sentir remarqué naa ko mooy tout le temps booy wax ak APR nu ngay wax maanaam yaa ngi ciy boole toujours. sa bopp je suis militant alors boole ci euh, say boole sa bopp est ce que mën nañu egg itam ba buñ ci yeggee ci élection yi ñu dëgmal ni ngeen àndee woon campagne nga àndaat ak ñoom ànd ak Macky Sall ngeen laajaat réew mi. li ma lay wax mooy man militant APR la tey bi ma wax ak waaw bu ñu ci élection loo xam ne mosul am ci sama digganteeg Macky Sall wala keneen. ne dañu ànd wuti bu ñu amee nii ak nii la ñuy def nii loolu moom jàppal ni faw mu am. ah bon mosul am nag mosuma toog ak kenn politique di la wax nii ak nii la ñuy defee mais comme loolu des na mu nga ca kanam te gindente am na waaye foofu la yam man nangu naa dellu ci sama liggéeyu avocat bañ am beneen forme de collaboration feneen nañu ko bàyyee noonu rek li ci kanam raw li bët. Ah, mais daal bu ngeen ci àggaatee lépp dina leer. bés bu ñu demaatee ba war dugg ci élection danaa xam yan tànk lay taxawee man sama bopp balaa may ànd ak kenn ma ànd ak sama bopp bu fekkee ñi ñi ma àndal yaakaar nañ ni war naa ko mën taxaw war naa ko mate bu fekkee matewu ma ko ñoom ñu yaakaar ko. en tout cas résultat ndar yi de buñ ci sukkandikoo. non ndar dama doon tàngalu rek man boo defee Casamance da ngay foog ni foofu laa dëkk ndar du dara c'est ma ville fa laa juddoo même bu doon am benn voix danaa fa dem laaj taxaw c'est rien c'est ma ville c'est pas un problème alors ñu ngi lay remercier. mais man itam. am nañu mbégte vraiment ci ci recevoir la ci faram fàcce euh, ñu wax ni itam ci audience nga jógee ñëw wu si ñu euh, loolu marque bu am solo la ci wàllu respect ñu ngi la ci jaajëfal bu baax ma bàyyi la nga tàggoo ak mbokk yi. maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di mu jëlee fa mu waroon tàmbale mooy leen jégalu yéen ñëpp te di leen baalu àq li nga xam ni suñu sëriñ su baax yi digal nañu ko moo ñu jégalu toroxlu jégalu suñu borom génne sarax naan nawet bi naat. gis naa ni ñu ngi koy ñaan. te suñ borom mi ñu ci wuy si donc nañ wéyale lool rek te di laawinti biir te di yeneente jàmm Pape Ngagne jërëjëf jërëjëf mbokki doon ànd ak ñun ci télévision Futurs Médias ñi ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox daje incha allah ba bële di ñëw bu ci yàlla àndee di gërëm bu baax la régie di gërëm itam suma xarit Babacar Fall ci ni muy jàppee ci émission bi mbokk yi ngi leen di jaajëfal di leen jox daje incha allah allah ba bële incha allah jërë ngeen jëf